képp koo xam ne suñ boroom dafa dogal ngay tuur wala ngay naan sàngara te bëgg see mucc bëgg a tàggalikoog moom naka ngay def ba tàggoo ak moom ci kàttanu yàlla loolu nag képp koo xam ne yàlla natt na la nga koy jëfandikoo rek lépp loo dégg ñu ne lu baax la si lu koy dindi wala luy tax nga tàggook moom war nga see góorgóorlu bu baax a baax a baax ay mbir la yoo xam ne yaatuma ci jamono ñu koy def lool waaye ay loraangeem tamit bëri na lool te ay njariñam tamit néew lool nem am na ay njariñ sax kon nag liñ indi woon tey di leen ko si baaxee xëy na guddul lool te képp koo xam ne jàng nga rek di nga ko mën a defal sa bopp képp ku jàngu tam yéene def ko tamit suñ jégganteeg yow rek incha allahu rabbi dinañ la ko baaxee muy da ngay bind xaatimu musallas xaatimu musallas nag ñi gëstu ci lasraar xam nañ ko soo bindee xaatimu musallas daay di baatu allahu nga bind ko warale ko xaatim bi soixante-six fois ba tey soixante-six fois allahu yooyu nga dagg ko xaatimu musallas boobu daat koy sol si biir musallas bi fi nga xam ne moom la ñuy wax baytul xaal bi mooy bi bunt bi nga xam ne si ngay dugal sa aajo nga bind fa sa tur ak sa turu ndey soo noppee xaatim booba nga def ko saafara di ko naan suba ak ngoon ba tey tamit baatu allahu boobu nga koy werdo 66 fois suba ak ngoon ba mu mat juróom-ñaari fan képp ku ko def si kàttanu yàlla suñ borom dina la tàqale ak sàngara bu fekkee danga koy jëfandikoo suñ borom tamit dina la tàqale ak tux wala gees bu fekkee danga koy def incha allahu rabbi te si lu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw gaaw lay doon képp koo xam ne tamit am nga yeneen aajo rek lu jëm si wàllu googu suñ déggantee rek si numéro yi dinañ la ko baax incha allahu rabbi kon xam naan daal loolu mooy li gën a yomb li nga xam ne ku nekk mën nga ka defal sa bopp walis keneen di la ko defal am na yeneen i mbir nag yoo xam ne xëy na moo sa gën a gaaw waaye leeral ko nii rek ci ay audio du tax nit ki xam nañ koy jëfandikoo waaye képp kum yittee rek suñu dégganteeg yow rek incha allahu rabbi dinañ la ko baaxee te itam di nga ci gis résultat nu mu gën a gaawee wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu